asalaamaaleykum wa rahmatullah waa Codice de la Strada ñu ñëwaat expliqué waat patente bi topp ci A muy patente bi 1 bi 1 nag mu ne la patente di categoria B1 abilita a condurre i quadricicli non leggeri di massa vuoto non superiore a kilowaat kilogramme yi mu ne patente B1 daf lay permettre nga dawal quadricicli non leggeri yu mag yi yi nga xam ne seeni poids seeni massa a vuoto bu fekkente ni carré gu dara maanaam bu mu ëpp quatre cent kilogrammes mu ne cinq cent cinquante kilogrammes bu fekkee véhicule bi transporté ay marchandises la waaw si bu dee bi transporté ay marchandises ni ñu koy liggéeyee ab woto cinq cent cinquante kilogrammes lay bu fekkente ne nag euh, manqué na euh, kii euh, quadricycle noonu lay jëre bu simple la rek ab woto quatre cent la mu ne excluse à la masse de la batterie mu ne booy wax booy wax masse nag doo ci boole masse batterie yi nga xam ne bu dee véhicule électrique poids bi batterie yi pèse du bokku ci e kon potenza massima non supérieure à 15 kW puissance maximum bu mu ëpp 15 kW mu ne abilité à condurre i quadricycle noonu la jeeri kon manœuvre quad mu ne dafa la permettre nga dawal quadricycle yu mag yi nga xam ni dafay am ay manœuvre comme guidon yi moto yi am ak volant yi ak ak vélo yi ñu koy woowee quad boo ko bindee ci Google bi da nga gis image bi maa ngi ko dawal boo yoree patente bi uno può, essere, eh, può conseguire la patente B1 qui a compiuto 16 anni mu ne ki nga xam ne am na 16 ans moom moo mën a wuti patente B1 à 16 anni è possibile trasportare un passaggero à 16 ans mën ngaa transporter benn passager bu fekkente ne dañ ko bind ci librette bi nag bu fekkee sóoraale nañ ko ci carte di circulation bi mu ne allo cadere di ogni 10 anni saa soo xam ni def nga 10 ans da nga war a def renouveler da nga ko renouveler 5 ans la bu fekkente ne yow say at. ëpp mi ngi toll ci cinquante ba soixante dix ans trois ans la bu fekkee ne at yi nag ëpp na soixante dix ans moom ay demande am yu trois dong la ci quiz yi doo ci gis lu bari bu njëkk mooy la patente di categoria B1 può essere conseguita a sedici anni di età è vero patente la patente di categoria B1 abilita a condurre alcuni tipi di quadriciclo non leggeri è vero maanaam boo amee seize ans mën ko wuti dalay permettre nga dawal tamit yenn quadricycle non légers yi weeru la beneen bi tamit dafa ne la patente di categoria B1 abilita a condurre i quadricicli non leggeri con manubrio quad mooy li ma njëkk li ma mujjee tudd fee euh, quadricicli non leggeri yi nga xam ne dafa am manubrio maanaam dafa am guidon comme yi vélo yi nga jàpp booy dawal vélo wala moto da koy am di koy woowee quad boo ko amee boo amee patente B1 man nga ko dawal yi si des nii ay demande falso lañ